c'est bon xalaat naa si affaire yi je suis prête en fait mais j'aurais préféré toog ak yow ak kooku ñu waxtaan tout ça kon ko instant bi nag nekkoo fi xaw ma nu muy demee mais bëgguma jël benn risque di envoyer vocal et tout ça mais loolu. mais Ameth xam man la gis mu gën a yomba di jënt numéro Ousmane Sonko. ah wax ko ni cas yëpp dégg naa ko et tout ça explique ko nu mu naa ko temps laa soxla mais le reste man man maa ay ay ma génn si ay journal wala yeneen ak na ma ne su amee sama photo dina génn comme photo gel bi nu mu génnee ñooñu yow xoolal rek la la wax nii. Ameth man damay xalaat ñi ma xam ñu nekk si état bi yëpp gis nga loolu su xasee ba jàll kenn dootu la ñeme comprendre nga ñëpp nañ naan ni bi nii gel bi naa man yooyu lay xalaat. yooyu lay sóoraale billaay. waa kon may ma jël sama temps may ma jël sama temps dégg waa uy ma léegi yow man damay envoyé benn vocal wax fu mu commencé ba ni xamante et tout ça ok am problème léegi damay day mos bi mooy lan est-ce que explique mu leer day mos bi mooy lan ak affaire yi ni muy demee suma ma vocal bi fu muy dem ak explique ma daal tuuti. bi jiitu plainte bi après ñëpp xamee sama baat tu mu nekk fi si internet bi et tout ça. billaay mën naa jël sama responsabilité mais yow nga toog comprendre nga moom mu toog mais pas mu envoyé le vocal bi yow nga transféré ko wala nga koy déglu loolu loolu yëpp mën na ko capturer man wóolu naa de mais ñoom wóoruwuma leen.